ladies and gentlemen tey ñu ngi teew seen deuxième numéro Dekkil rab l'homme se nomme Gas El Salvador tey Dekkil rab ñu ngi dalal kii di Al Mouhtari aka gentleman aka góoru ndar aka euh, gentler gentleman yeah man euh, tey ji ñu am kontaan di ko dalal ci émission bi seen deuxième numéro Dekil Rap ya Al Mouhtari nako wari yeah nice ni baay cool tay ñu amone contenté di la dawal di la dalal tay émission Dekil Rap parlons hmm, ya. eh, nous un peu qui est Al Mouhtari waaw ah, d'abord salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ñëpp ñu ngi seetaan di la jaajëfal ci invitation bi eh, di nuyu Saint-Louisien yépp ak ñepp ñu may suivre si ci fête Al-Mouhtari le bon Al-Mouhtari buma ma wax kan moy Al-Mouhtari peut-être damay rêve parce que nit pour nga wax sa bopp day xaw jafé mais juste rek Almoutari c'est un jeune rappeur saint un moi loolu loolu la wax. mais bon parle-nous un peu fa le tur bi parce que pour comprendre. al Almoutar. Euh, non yàlla la. Euh, non euh, la turu tout tout turu yeneen la mhm. bon. non il faut le juger exactement. en fait nom Almoutar c'est sama tour la dab en arabe on dit Al Almoutar. Al-Muhtari, c'est ça veut dire le choisi Moi, kenn ko xamante tanef la tur yonent bi la comme yonent bi yàllaa ko tànn sama tour la en même temps parce que man muhtar la tudd donc ça veut dire le choisi muhtar c'est le choisi j'ai pas modifié mon nom changé mon nom dara sama tour laa jël arabisé ko tuddee sama bop Al-Muhtari, comme si je suis le choisi ok maam Légui, bon parlons de cette évolution si al hop mm-hmm. euh, almuxtaar yi commencer. Tu commencé mm-hmm. ci hip hop quoi ñen ñoo ko Tigo. Yeah, Al Moustari, euh, je peux dire que ni, par exemple, je suis carrément je Euh, studio Sénégal, il l'ai commencé depuis que euh, commencé. def foofu noonu ay son une mixtape bu tuddoon beneen jant en 2015 après def naa tamit ay featuring yu bëri ku fi neen Maman Sadio ay benn cartel bu nekkoon sama koñ bëri na affaire yu ma def si diggante bi au fur et à mesure après bi ma génnee beneen jant aussi euh, def naa mm, ay freestyle lu si mel ni ñoo di freestyle gars yi xam nañ ko coow li yeneen ak yeneen euh, loolu moo taxaw ñu gën xam almuxtaar yi mais Diop Pape mooy loolu sénégalais Sénégal yi daaru mooy loolu après Ndar. ñu gis ni bi nga nekkee sénégalais ñu ci lan la daan ëpp li la daan gis prestation sur scène quoi genre daan nañ gis yenn festival yi. Mhm. yi nga xam en dehors Saint-Louis la. Mhm. aussi tamit daan nañ le gis euh, lu bari ci Saint-Louis quoi seen manifestation yi nga doon joué mais après. ñu gis ni Almoutar dafa melni dafa xaw. bon genre xam nga laa ko mun tuddee. game bi dafa xaw a wàññeeku si game bi concentré wu ci côté audiovisuel wala genre nu mu nu mu demee noonu. Euh, en fait loolu man gisee ma ko noonu parce que euh, je peut dire que léegi laa gën a màgg léegi laa gën a ñi may suivre léegi la gën a ëpp. Euh, léegi laa gën a mën jouer ay concert yu mag euh, parce que comme comme ni ñu koy par exemple euh, daal laa gën a nekk carrément ci carrière musicale. par exemple euh, waaw parce que euh, quoi qu'on puisse dire euh, man comme ni ma koy chaque jour rek j'ai une idée même avant may jouer avant may jugee Sénégal yi concert yu bëri joué tuma fi mhm. parce que euh, comme ni ma koy waxee man léegi rap bi defatuma ko foofu quoi. defatuma ko foo looy yàq sa temps chaque jour. di ci nekk di def ay son comme nu ma koy waxee chaque jour même bi ma nekkee Sénégal après mixtape bi ma génnee benn son dinaa toogaat benn <laughs> un pour mu génnee beneen son donc euh, li mu doon wax mooy son yi gars yi foowee wuñ ko dañ koy joob dañuy tëdd xalaat dañuy def donc lu tax ñu koy war a génnee war ko may nit ñi noonu noonu lu tax ñu koy def donc. Euh, même man sama joué concert tamit c' ça. concert bu ma joué wul maa ko bëggul joué. parce que d' accord ñu wala affaire yooyu wala pour des raisons yoo xamante ni professionnel. lu bokk la ak audiovisuel moo tax mais amul concert bi am fii sans lui te du ñu wax almustaari loolu moom. <coughs> Non la demee quoi. en parlant sax si son yi. ñu gis ni. <coughs> Mhm. Euh,

bon en fait je peux dire les deux quoi comme le ma la wax man euh, le may wax rek rab bi du foofu si man peut-être ni un jël seen son di ko bazar la ni mais man bu bien benn mesure là. Mhm. je peux dire que benn mesure bon non ça en vaut la peine que defal li ñu ko war defal quoi. parce que rap quoi qu'on puisse dire c'est quelque chose bon à ni c'est intellectuel. dafa laaj par exemple euh, lu bëri loo xamante ni da nga sacrifier pour def ko kon lu tax ñu war a génnee ay produits rek nit ñi duñu forcer génneel génneel nga génne après ñoom ñu déglu kii mu yam si yow ki ki ki après mu jeex wala entre nous les rappeurs pourquoi ñuy def lool donc à chaque fois man je planifie des choses té lu ma def ça veut dire que man lool la planifié def ñu bëri dañu yaakaani ni muy dernier tax produit bi ma euh gars yu bëri ñu ngi naan ma waaye affaire dafa melni dañu xey nga benn jour rek génne mel na xey xëyuma benn jour rek son yi yàgg nañ ñu ngi studio defar naa on a choisi ñu baaloon def benn fan ñu wax ko nit ñi mais pourquoi maye aussi waaw c'est un choix loolu laa lay wax par exemple euh, quoi qu'on puisse dire man je dois faire un concert euh, le 26 décembre inshallah. Mhm. on a décidé euh, ñu def ay sons yoo xamante les gens vont accueillir ça. yoo xamante ni gars yi dinañ ko ñenn dina yegg si ñenn ñenn dinañ ko teglu ñu découvrir wu loonu almuxtaar yi si facette yu bëre ñu découvrir ko mhm. ñoo xamante aussi ñi nga doon suivre ñu am lu bees loo xamante ni dinañ ko mën jàpp pour le concert mhm. mais le grand projet le très projet bi ñu jox carrément du lool mais man dama gis ni genre euh, yow événement bi ngay wala que nga événement bi lu ça sound ngay quoi. c'est ça événement mm. ils vont rester parce que son ils trop wuñ comme ku nekk déglu nga son xam nga peut-être loolu ku nek ak sa analyse ñi nena ñi mo len ci neex ñi la ñi bind ñi way la nan ak lan donc ça a été bossé quoi té les deux alliés ensemble mm-hmm. ñu nek fi ni di gëné ay son may gëné ay son mu gëné ay son par exemple may la comme comme wa orange ñi ñu jëlé mm-hmm. ñu la bo jëndé crédit da lay may bonus nangam si je te donne bu ma la joxé benn bonus mm-hmm. c'est pour nga ñëw fay ci concert bi pour bëgg seetaan est-ce que mënu la parce que concert du gratuit té dañ ko def ay prix yo xamanteni par exemple c'est quelque chose boo que donc c'est juste ça c'est pour que les gens ñoo xamante ne xamuñu ma woon wala ne xam nañ envie pour découvrir quoi c'est ça C'est facette yu du facette yu du quoi en fait non lay quoi nous, dernière vidéo bi nga ñu mm-hmm. du dañ mm-hmm. euh, euh, deux facettes ngay guerre quoi genre comme quoi. Mhm. genre genre love quoi. Mhm. mais histoire au fond. Mhm. le fait que mu am rupture. da daf la ba genre expliquer ci quoi. parce que man man man je mais avant tout avant tout gars lu ñu jota dund du mësa dañ du never never never du dañ ah, sama tur mi ngi fu ma yegg. yooyu sama gars yi ñoo gisandoo vidéo du dañ bi léegi parle-nous un si vidéo bi explique-nous. Yeah. son ou vidéo euh, genre sans vie quoi. Euh, wow, euh, du quelque chose qui est histoire là quoi genre parce que je suis suis pas man parfois je les thèmes de faire un scénario. Mm-hmm. comme par exemple comme je fais ici côté audiovisuel vais faire un scénario moom je suis son bi quoi son bi deux couples c'est un ami genre. Euh, daf la daf la daf maanaam daf la teg bët quoi. genre loolu premier couplet bi ça parle de ça. deuxième couplet bi mu nekk euh, un ami boo xamante ni yéen a nekkandoo ami d'enfance. koo xamante ni yéen a juddoondoo yaroondoo nekul yéen choisir and mais dëkkuwaay moo len bolé quoi genre comme yow ki nga yeewoon dol dendal ke force da ngeen di nekk xarit xarit ami d'enfance quoi mais mu ngeen tol ba si yàgg gas nek ci ci rap moom mu nek ci manam walum commerce bokkuñu jëm quoi quoi donte ñom ñaar xuloowuñu amuñu problème mais dispersé nañ donc ñaari ñaari waaw ñaari ñaari scénario yoy non ma am ci son bi et ça parle d'amitié carrément quoi son mais aussi tamit bu ñu xoolee bu baax ci biir son bi dañ ci gis clash quoi Mm. dañuy gis clash biir sax mhm. explique explique ñu genre clash bi fan nga ko tibbee

plateforme fu ñu la attaqué mu jël sa défense. maanaam budul man. muy yow comme léegi expliqué naa lan. am na ami d'enfance quoi ami d'enfance du koo xamante ni yéen a choisir ànd de. wala da ngeen ba am vingt ans ànd wala affaire yooyu noonu. ami d'enfance mooy comme lu ma la tegal mooy koo xam ne yéen a moo la koy déterminer par force mu dara. loolu moom ki nga doon foowoon ndool defandool demandoo école xam nga. ngeen dem ba si yàgg

tàqaliko tàqaliko euh, bañ na ko sax ba euh, kii nu mu tuddati sëy dafa dagan fase dagan est-ce que la wax yàlla moo daganal sëy daganal fase donc man euh, comme lu may wax rek nit mënoo bind son te kenn du si gis boppam son bu ma bind nit mën la wax ni diw laay waxal wala diw gis si boppam son bu artiste bind Youssou Ndour mën na bind son xam nga ni xamula la mais mën na wax mu laal la ñoo ni kii lii muy wax nii man sama bopp la nekk nekkul si boppam

comme lu may wax rek man euh, du ma bind son euh, pour par exemple comme comme lu may waxee maanaam si si gas quoi damay bind son sama bopp man man sama sama sama état d'esprit le son manam euh, ci son bi ci def peut-être ku nek comme nous wax rek ku nek di nga interpréter ku ni nga mm-hmm. ak nga instant ngay ngay analyser son quoi déjà vous euh, ay son lu nek fi mais est par exemple ku nek rek mais mais am ko mom non la démé ah à chaque fois clash lay ne quoi. lu tax nga yow nga jàppee lool non c'est-à-dire boo dégloo sound bi ci biir. Mm-hmm. da xam ni au fond yow am nga ñoo index c'est-à-dire indexé directement ne ñii la. Mm-hmm. mais am nga ñoo bëgg a waxal ci am nga ñooy waxal ci sound bi ku xam Al Moukhtar mm-hmm. xam aussi tamit entourage am. dana xam ni al am na ñu muy waxal. léegi cooli cooli xam nga kañ laa génnee cool bi ngay génnee ya boobu yaa ngi yaa ngi Sénégal mi non. Mhm, waaw vraiment kañ laa génnee 2016. léegi comme loolu rek laa lay wax maanaam adduna <laughs> moom noonu la demee man son yi moom damay man damay bind li ma xalaat. man meluma comme rappeurs yoo xamante ni dañuy gis par benn gas def nii muy def ba ñu topp ka non non man j'écris loo xamante ni moom laay xalaat peut-être loolu laa lay wax rek ku ci gis sa bopp jàppal ni loolu la quoi.

ciel bi xam ku nekk dina am lu mu ko génnewee quoi selon moom état d'esprit am quoi. noonu la demee affaire yi man man noonu laa bindee ay son te je pense que ni ba noonu laay rabee quoi c'est c'est tout moi. kon loolu leer na quoi yaakaar naa ni point boobu kon doon na si dellooti leer na nañu quoi mm-hmm. léegi dañuy ñëw si jant leer show bi mm-hmm. ñu gis ni daaw nga defee ko sa koñ mm-hmm. école naa la Ndiaye léegi la moo tax ren nga déco euh, nga euh, délocaliser concert bi indi ko institut France waaw loolu dara hein? parce que je pense que daaru ak institut français c'est la même chose que parce que lépp ndar la quoi sa koñ la quoi genre waaw xam nga bo nga boo ni loolu sama koñ ça veut dire beug nga ma tëj foofu mhm. nga sax que la wax man euh, instant bi comme lu ma doon wax rek euh magna mhm. comme lu ma wax rek dib par mhm. exemple c' est un rappeur non lu defatul concert les grands yo lu muy def ci ses bon genre. Euh, ah lol la rek. par exemple moom moo évoluer quoi peut-être. Euh, léegi bon public euh, Grand yo bi amatul lenn muy prouvé foofu. très bien c'est ça prouvé Grand yo c'est ça léegi da koy jéem a délocaliser yóbbu ko Cissesse. c'est ça c'est ça ak yenen public. quoi c'est juste un exemple quoi. du dara lutax ma indexer ko directement. Mhm. euh mais du dara euh loolu rek la lay wax par exemple. man yaakaaroon ni dafa tel aussi première édition rek deuxième édition nga génn sa koñ. lutax mu tel man bama commencer bama commencer rap. Mhm. man telu ñaata ñaata concert nga def nga mos a daaru def naa bi moy sama deux concerts def naa ko fa. deux concerts deux concerts def naa ko daro même budul dul sax buma defone defoon première édition bi institut français wa daro dañuy ñew parce que léegi almuxtaari almustari ndar la. amna na sa euh, boo son tête d'affiche. Mhm. bu nekk euh, si ficha bi. maa ngi koy wax maa ngi naan la euh, Daaro Medine la am mais ndara ma sas. par exemple masour fay bu ñu woon Mansour Faye Njolofène kessa la. Mhm. ah du nekk maire de Saint-Louis. donc parfois il faut par exemple affaire yi fu toll

nuyu amu taari Sénégal. C'est est man noonu laay joobee boo gisee lu may joobee comme ça que je boo gisee lu may lu may lu wax lu bëri doo gis. Mm-hmm. may may forcer gars yi naan leen waaw représente fii représente représente représente góoru Ndar laay may. je suis góoru Ndar. et je suis Saint-Louisien. am naa droit def sama concert institut français. mais aussi tamit yaakaaroon ni da nga jël risque aussi tamit foofu non quoi parce que bu dee Ndar au moins. Mm-hmm. Euh, peut être muy gën a jege. Mm-hmm. gars yëpp ñëw génn. c' est ça euh, support la. que ñu déplacé di Ndar di ñëw institut français quoi waaw man man lu amul risque man duma ko def buma naré def lu amul risque buma naré def lu amul risque ma bàyyi rap rap bi may def rek risque la quoi parce que tu passes des heures yo xamanteni am nga leneen lo meun lo xamanteni mm-hmm. bo demone fenen mm-hmm. job ko fa mm-hmm. ah wala nga dem déposer fa sa dara wala nga wan len li nga meun da ngay liggéey carrément limay def ni rek c'est un risque nga nek si musique lo xamanteni yow yaa ngi def nit ñi ñoy bëgg nit ñi ngi ñëw par ben ben ku nek di ñi di ñi di support donc man loolu loolu du sam

yaa Jantler Show moom. du am guest star bi quoi. waaw bi kenn la quoi. yow yaay noonu la demee. ok mais ban surprise nga ñu indil. waaw surprise ma la ko waxee dootul nekk surprise déjà. <laughs> non mais au moins dañu euh, lenn lenn information yoo xamante ni. Mhm. gars yi xam nañ ko. ñu mhm. ngi si affiche yi déjà. yoo xamante ni ce sera ce sera aussi quelque chose de nouveau. mooy dina am live band dina am live DJ dina am aussi spectacle. spectacle jouer ak wa gone live band. et tout xam nga loolu tamit dina nek quelque chose de nouveau. bo xamanteni amul woon daw donc amna yo xamanteni aussi jour ba la koy nit ñi découvrir ok kon yow instant bi nit ñi gars yi xam te ne ngi pare jant leur show bi. Mhm. yow promettre nga len spectacle. non son et lumière. son et lumière té té té duñu gis euh, li ñuy faral di gis. Hmm lol mom je vous le promets yéen la waxal yéen ñuy sétane di ngeen gis lo xamante ni du ngeen ko faral di gis. ko live band dal daal assuré ngeen ko quoi. du live band kessé peut être lol lol nekul surprise ben volé la ci quoi nekul surprise mo tax mm-hmm. ñu bind ko ci affiche mais li nek surprise loolu jour ba la koy gars yi mais aussi tamit concert euh, hip hop. Mm-hmm. ba ci indi ay mbalax maan aussi tamit ñu si gérer. non amul mbalax maan. ah mais bu ñu nee ay mbalax maan ay. ki wala ñom joué wuñu dañuy def dañuy jouer instrument rek joué wuñu ci kii bi. orchestre lañuy jouer ah orchestre ak ak yow. ok orchestre lay gone di jouer. parce que boo xoolee sama mm-hmm. produit Ficha bi am na benn euh, son boo xamante ni. Mm-hmm. Papis moo def euh, moo def moo def composition bi. composition bi moo ko commencé mais Papis moo yeggale composition bi am na yoo xamante yu ëpp live band lañ ko yeggale quoi. Mm-hmm. am na ay live la ko def. na ay produits yoo xamante ñu ngi ñëw comme li ma la doon wax sànq ah, am na produit bu gën a costaud peut bi incha allah gars yi nañ ko découvrir Euh, loo xamante ni euh, ce sera affaire boo xamante ni dina bett ñëpp ko mm, parce que man carrément man loolu laa doon joobal. joobalu mu lii nii mu génnee nii nii récemment. Mm-hmm. donc euh, naka ko xaar Papis def na ci ay composition yu bëri affaire yooyu noonu te incha allah Jantlo Show nañu am aperçu tuuti si lool ok léegi temps bi mi ngi bëgg a xoj. léegi parle nous un peu ce projet. ce projet après Gentler Show donc prévoir d'ici deux ans ou trois ans d'album. album wala mixtape aussi est-ce que l'album aussi tamit Bob <laughs> bu baax waaw képp kuy artiste moom képp kuy artiste di rap moom album mi ngi mais est que pare nga album tey jii nii boo amoon benn producteur bu taxaw ñëw ne da lay produire suba est ce que am nga instant yi 18 titres yu taxaw est album bi parewul est parewul ah mais la moo la moo ci des loolu nekk de hmm. comme li ma lay wax rek euh, du ma wax du que y a des surprises yoo xamante ñu ngi ñëw te wax naa léegi am na benn produit bu koso bu ñu pare hmm. pare na incha allah ay futur ñu xamanteni sérieusement. mooy loolu quoi kon kon kon kon kon dal mun nañ xaar quoi. waaw mun nañ xaar. liñu déssé won ci temps presque euh bon sa dañu sa dañu mot. waaw sama sama dernier mot c'est un message bo xamanteni ni à l'endroit à l'endroit de tous les saint di leen wax ni almuxtaari almuxtaari saint al muhtari waaw quartier yëpp la quoi. donc di leen wax ne gars yi def teew euh 26 décembre incha allah parce que c'est un défi qu'on doit relever du côté hip-hop du côté représentativité bu baax euh, te pare nañ pour def ko quoi on a bossé pour ça euh, mooy loolu na gars yi def teew les préventions sont presque finies gars yi mooy loolu na gars yi daw pour ñu am na gars yi ñëw support seen taw xam gën a pour yéen a gën a en tout cas je vous promets des surprises leen jaajëfal waa Saint-Louis TV jaajëfal gas en émission bi for real preuve preuve baane yéemaan noonu lay demee ñoo ko euh, le 26 décembre une seule date à retenir institut français show Al di def ak équipe am ak euh, waa Hitbox yi xam nga gars yi ci aussi tamit di wax ni disponible na nañ ko dem jëndi spot ko doomu ndar la bañ kon naka dem euh, mooy loolu wan loobu jaajëf mooy gars yi loolu la doon seen émission Dekkil Rap tey jii ñu daloon almuxtaar yi euh, dégg ngeen leen fi wax di jaajëfal sama caméraman yi ma Ndiaye l'incontournable Nobisto leen jaajëfal di leen jox dig daje si yeneen émission jaajëf ku xas ba am vingt ans leer na la mën am ami d'enfance ku la xoolee boppam fu la attaqué mu jël sa défense sama xol mi ngi xaacu dem naa léegi ba miss yu xoom yi na ma naa ko ne ri daan def maag yow ah miss yu xoom yi